ak mbokk yi gannaaw bu ñu dégloo alquranul karim ba pare euh, ni nga xamee ne noonu la kàddu yi war a teglante ki war a tatagal tatagal ki war a wax ci turu mbooloo mi wax ci turu mbooloo mi kon nag borom tànt bi mooy ñëw borom siira bi borom gàmmo gi fadilatu cheikh Mouhamadul Makki Ibrahim ñas mi nga xam ne biñ ko sololee manto gàmmo ba léegi Euh, noppalawut nelawut ah ndax diggante Danemark ba Angleterre Europe ak Amérique yépp mu ngi koy wër jël di guddi yi ak bëccëg yi di ko jokk jokkale gàmmu Dakar ñu féetale ko ko mu rafetal ko lool kon nag siira yonantu bi sallallahu alayhi nga xam ne Baay waxoon nañu ne huwal kullu minhul kullu batnan wa zahiran fa bahrun siwaahu maa lanaa fii mashrabu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy lépp te mboole may yi ci moom la jógee mu ne nag may ak ku duhut moom man awma ci soxla man Cheikh Ibrahim te itam géej la goo xam ne su ma ca naanee ba màndi ku am toq-toq ku am xond-xond ak koo mën a doon jëlal fa baxrun siwa siwaahu maa lanaa fiihi mashrabu géej gu mooy géej ak yonent yàlla muhammad océan bu mooy bu yonent yàlla muhammad kawsar bu mooy yonent yàlla muhammad man duma ca naan te naan lawuma ca kenn kon ñu ànd ak ki nga xam ne mooy borom siira bi nga xam ne baay bu ni ci li tax mu koy wax mu ne sooy déglu li nga xam ne mooy siira yonent bi dégg jikko yu rafet ya dégg tabe ji dégg li nga xam ne mooy bëgg doomu aadama dégg solidarité dégg li nga xam ne mooy jamono ji liñ soxla yépp ñu indi la jikko yonent bi ci loolu su boobaa bokk na ci lañ cey jëlee mooy ne lu rafet loolu lu taaru loolu lu maandu loolu lu màgg loolu jógee ci yàlla moom boo fa jógee da nga am yóbbal bu em ni maanaam jikko yooyu da nga ca roy loo xam ne mooy defar sa société defar sa tey defar sa ëllëg kon sëriñ bi comme ni ngeen koy waxee qul wa ruuxul qudsi maak te amuñ sikki na yow ruuxul qudsi mi ngi ànd ak yow kon Mouhamadul Makki Ibrahim Niass borom gàmmu gi نادي شفيعي بمنتقى البكي أبيبيا أهلا بشار الفرح شار ذهاب الترح وفخرنا والمرح شار النبي إلى أفضل ربي بمنحة شفيعي بمنتقى البديع أهلا بشار الفرح شار ذهاب الترح وفخرنا والمرح شار النبي إلى أفضل سمعت ربيعي بمنحتي شفيعي شر الفلاح والسرور شر بي سار الدهور وشحن بين الشهور متوج كلالي سمعت ربيعي بمنحتي شفيعي شار الحاتمي شار النبي القاسمي وفاتح وخاتمي واخر واولي ربي بمن أتي شفيعي بمن تقلمني على المشار الناصري لحق شار اللامري بعرف شار ظاهري بكل واصف نكملي يا ربيعي بمنحتي صفيعي بمنطقي بديعي أهلا بشار الهادي لمن حجر الرشاد وقائد نحادي إلى الطريق الأمزلي يا ربيعي بمنحتي صفيعي بمنطقي بديعي أهلا بشار سيدي لأحمر وأسود من حظ سبق صددي وارتداء لرسلي يا ربي بمنعتي سفيعي لمن جحلي وقد كفى كل أعباء وكلا بقوله أنا لها عند الشداد الوجل بمحاتي شفي بمن تقي البديع يا لها من حطة جوابه في الحطة من ربي سل تعطى واشفع لدينا تقبلي منعدي شفيعي بمنطق المدينة أهلا بشار المصطفى صفوة كل مصطفى وخير عبد قد صفى من ملك أو مرسلين ربي بمنعتي شفيعي بمنطق المدينة شر خير خلقي شر جميع خلقي شر عظيم خلقي في محكم منزلي يا ربي بمحبتي سبيعي بمنطق البديع أخذ بها شر الذي أثاره إله واختاره من حبه خيره عند قضاء الأجر ربي لمن أتي سفيعي بمنطق البديع أخذ بها شر الذي مساقات ومن له الحسن فقط علي جبريل هبات بكل نور معتلي أنا ربيعي بمن أتي شفيعي من تقل بديعي أبدا بديع الاثني عشر في ويوم الغر وطيب ذلك سحر ونور في خجل بمحكي شفيع بمنطق البني أهلا بكل مظهر من خارق الفكر في كرافي البصر إلى مقام العلي بمحكي شفيع بمنطق البديع وما رأت من عجاب أمين آمنة حين النصب سبابة ثم اقترى بسجدة مبتهلي لملكي شفيع بمنتقى المليء كما تدل الزور كما ترى القصر في وحل الكسر بصنم مجدد ابن عدي شفيع بمنتقى البريء وغادت البحار وجفت الأنهار من أجلي والنار قد طفئت من خجلي جماعتي شفي بمنطق البدي وجن في نكدي لرميها برصدي وعزلها مقدي من أجل خير رسلي رجعت ربي بمرأتي شفيعي بمنطق البديع ورنت عدو الشيطان جرى عظيم الشان من أوضح البرهان لعظم ما بيبتلي ربي بما أبي شفيعي بمنطق البديع أجب يا محمد أهلا بيوم العيد ما مثله من عيدي قد حل بالمولود في محل الزحل ربي بمرأتي شفيعي بمن تقيا هدي أقضيها وسابعين ولادا ومات أستادا من رفق ما أراد إله في الأزل ربي بما حدي شبيه البديع على اليوم سمي محمدا خير اسمي رمزا لما أنا اسمي من جدي لينجلي ربي برحتي صفيعي لمنطق البديع وسابه الولادة ومات أستاذ من وفق ما أراد إله في الأزل ربي بمرحتي صفي بالمنطق لا بديل أهدي بها محمد سابعي الولادة ومات وساد من وفق ما أراد إله في الأزل ربي بمرحتي صفي بالمنطق لا بديل أهدي بها أهلا بيوم سمي محمدا الخير اسمي رمزا لمعنى الاسم من جديد ينجلي دنياك ربيعي بمراتي شفيعي بمنطق الربيعي بحمد الاولين الاول الاخرين فكان زائقنا من الكريم المفضل دنياك ربيعي بمراتي شفيعي بمنطق الربيعي على اليوم اثنين مولد ثاني اثنين وبعث سر الكون مقدمي مبجلي ربي بمرحتي صبي بمن لم يلا أكرم بشار العجم إبريل شار الكرم أكرم بأرض الحرم مولد خير المرسلين فريات ربيعي بمرحتي صفيعي بمن تبقى بديعي أكرم بيوم النوم إسفارا عيشنا واستنارا لمن حوى الفخار وغفلة من منزلي بمرحتي صفيعي بمن قتل بديعي أتبعي أكرم بشار نسيان مولد خير الإنسان قدوة آل إحسان وكامل المكمل تليات ربيعي بملحقي شفيعي بمنطق البديعي أقول يا محمد قدمت لالي في عدة ليالي بزينة المال كجور المفصل تليات ربيعي بملحقي شفيعي بمنطق البديعي ثانية الربيع بمدحتي شفيعي بالمنطق البديع ابرب يا مؤملي بمدحتي شفيعي بالمنطق البديع أبغي يا الجمابي يوما ونيل قربي وفضل حب ربي وما الرضا والأمل ثانية ربيعي من عدي شفيعي بالمنطق والختم لي بالحسنى واجمع لي للحسنى لدى المقر الاسنى مع الرفيق الافضلي ربي بمرأتي صفي عيني بمن تقي الابدين وكن لنا وليا وناصرا حفيا لا نرتجي غويا بجاي عبدك العلي بمن حدي سمي بمن تقي البديع الله وسلم إلى علي أفضل الصلاة ما دام كون لنا من أبد لأزلي وعلي وصحبي وزوجي وحزبي وكل آل حبي مع السلام لكم لي بمعتي شفيعي بمعتقل بدي أبقي بها بجاي يا إله في الناظم يا واسمح لقاري يا وعمهم بخفي لطي وفيمون وعيب درمان لنا فاته الكثيرة أجب دعاهم وأجب بالذي طلبوه بجاه أحمد ما أصاب الخير اللهم صل على سيدنا محمد فاته وللقى والخاتم لما سبقنا سر الحق بالحق ولا دين صراطك المستقيم على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 alhamdulilah walsalaatu wassalaamu ala ashraf alambiyaai walmursalin sayidina wa mawlana wa azimana muhammad ibn abdillah xaatim alambiyaai walmursalin wa ala alihi wa ashaabihi daain wa man ittaba bi ihsaanihim ila yawm iddin wa radiyallahu an qutbul maktum mawlana abil abbas sayidi ahmad tijaani wa an saa'iri xulafaayi wa ala rasihim cheikh al islam wa saadat al anaam مولانا الشيخ إبراهيم يس رضي الله تعالى عنه ونفعنا ببركاته آمين mbokki lislaam fu ngeen mën di toll mbokki jullit ñi ñi nga xam ne ñun ñëpp ñoo bokk yonentu yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi leen di nuyu di leen ziara di jë jële nuyu bi di ko jottalikoo ci xalifa cheikh lislaam seydi cheikh ahmed tidiane ibrahim Niass ak rakkam cheikh Mouhamadul Mahi ak imaamul Fayda Seydi imaam Cheikh Tidiane Ali Cissé su ma waxee ñooñu wax naa mbooleem kàngam yi ci mbiri na ñu ngi leen di ne mooy bisab yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam su dootoon bisam dañ tuddee ko ko sax mu daal di far doos bisam ndax moom moom lañ wax ne ma wan sib ila zatihi ma chita min sharafin wan sib ila qadarihi ma chita min azamin mm-hmm. moom yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam askan loo askan ci moom rek lu néew la ci xàqam ji ndax askan yëpp moom mooy moom moom mooy sayyidil awwalina wal axirina mooy mooy ki nga xam ne moom la yàlla wax ne su taxutoon ak yow du ma bind ak laajal lu neex ma jox la ko yàlla tànnal ko nag mu mu tolloo ak xeet wi nga xam ne mooy gën ci xeet yi mu tudd mu ooye leen ne leen kuntum xayra ummatin uxrijat li naas lu tax taamuruna bil maarufi wa tanhawna anil munkari ndax yéen yéenay santaane lu baax di tere loo xam ne luñ luñ sib te loolu ñu ngi ko jàngee ci yonentu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa parce que yonentu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam su taxutoon ak moom ñu xam lu baax bay xam lu bon parce que waaye moom moo ñu xamal ni nga xam ne moom mooy li baax yàlla tànn ko muy ki gën muy imaamul awliyaa yi wal mursalin mbooleem yonent yi moom mooy seen ilmaan ndekete yoo yàlla bëgg xeetu yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa moo taxoon moom na xamoon na ne seen xel mii lii lii kawe gi yonent di yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di indi xajut ca xeet wu njëkk wa moo tax xeet wu nekk rek yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci moom lañu daan jottali ko mu leen di jox lu tolloog la seen xel ya toll la ko dalee ci aadama ba ci yonent yàlla Isaa xam nga ne sharia ci yonent yàlla aadama booba suñ ne woon kenn du takk sarak wala sa mag ko bokkat ndey ak bàyyi ni ko doon tey duñ mën duñ mën a duñ mën a taawee ko ak agsi fii waaye nag moom dagana nañ loola waaye aadama jógul ci adama ci àddina mooy am na junne juróom fukki junne juróom junne eh, mbindeef yoo xam ne am toppam lañ ay ay doomam ak ay ay sëtam beneen nii doon doon ñëw muy caatam moom nga xam ne moom mooy siisa siisa booba itam moom ñëwee ñu daal di tegaat leneen ci diina ji moo tax aadama bu daan ndox rek dafay gis malaaka yi di ko topp mu ne yow suma borom ñii di ma topp lu tax mu ne ko ki nga xam ne leer gi nga xam ne moom laa cee moom moo soqeekoo ca man ma di ko ma ma ma ma ma denc ko ñu ñëwagut leer laa dénk ndax moom moo njëkk ndax yow ci moom lañ ci yaa ngi yaa ngi jógee ci moom ba moom mooy mujj mooy mujj ak yonent kon nag li jaadu moom mooy mu ñu mu ñëw ba nga xamee ne yàlla gaaral na ñoom ñooñ kaw ak ñoom suuf yëpp ne ne leen in danaa danaa inna aradna al amanata ala samawati wal ardi wal jibali fa abayna an yaxminaha kolere googu nga xam ne yàlla gaaral na ko ñooñ kaw ñoom suuf ñoom ñëpp ñu gàntal mu gaaral ko aadama aadama nangu mu ne ko nag yow laay defaral médaille yi nga mel ni yow yaay maam yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaye yonent bi mooy maam yi maam yi mooy maam yi bàyyi ndax yëpp ci moom lañ ci soon yàlla fi nekkoon bu fi dara nekkut te su fi lépp jógee yàlla boobu moo fi jëmee moo fi des tax te jëlli bu njëkk ba bàyyi daa wax ne ndax amul kenn ku ko seede muy feeñ muy muy muy muy am yàlla gi mës mësu koo jiitu te du jeex mukk laa waaye ba mu bëggee defar leneen te leneen amul nag ci la jëlee leer ci moom daal di jëf ko muy yonentu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam yonentu boobu tuddee nañ ko nu nekk xayula malakum kuruwiya xel mu njëkk ma xel mu sell mi waaye li nga mu xaqiqo ne ni ñu ko tuddee moom mooy xaqiqatu muhammad yi bi nga xam ne mooy cosaan yi lépp loo xam ne dafañ ko mu tax moom mooy bàyyi bàyyi mooy bàyyi maam yi ca moom la yëpp jógee moom la géej gi nga xam ne moom la njëkk a bind sax te moo ëpp te moo gën a bëri moo góogéegi mooy ñaqu yonentu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndax ba ko yàlla dafa ree mu nekk fa mu nekk kenn xamul fu mu nekkoon mu nekk foofa di sàbbaal di sàbbaal boromam kenn xamul nu muy sàbbaalee kenn xamul lu muy toppee boromam ba yàlla bëgg a bindee bindee bëgg a bindee fii ci daf te jëlim ñaareel nag mu jël yonentu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam won ko lu mel ni seetu nga xam ne daf ciy gis boppam kersa googa ndax may gu réy googa nga xam ne su yàlla doon am melokaan noonu lay mel moom moo tax mu ñaq ñaq woo ci la yàlla bindee géej gannaaw gi nag géej gi ci lañ bindee purit mooma ak duus yooyu mu yëngatu ba dafa su ba def ba def ba def sungu sungu soosa ngelaw li ëffal ko mu def suuf mu daal di dem ba du ay xeer mu fenqalante ko ba mu génne ay saxat saxat si mu def ci asamaan gannaaw gi la yàlla def yëpp juróom-ñaar muy asamaan yi juróom-ñaar suuf yi juróom-ñaar bis yi juróom-ñaar mu daal di bind yonent bi sallallahu alayhi wasallam nag lii yow rek yaa tax ma def ko ci moo tax ca bis bu njëkk ba la defal aadama mi nga xam ne moom moo nangu woon examen boobu bu ko yàlla waxee gaarale ñoom ñëpp ñu gàntal ne ko dañuy ragal nga jël ci ñu cër boo xam ne safara daf ci am cër moo tax ñu bañ aadama nag bi mu ko nangoo mu ne ko danaa def ngay maam yonentu yàlla Muhammad sallallahu waaye aadama xam na ne moom moo moo yonent moo ko jiitu ma jibril li nga xam ne moo gën a foor ci malaaka yi itam mooy sangi malaaka yi itam moom itam ca yonentu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa moo ko mag tam ca ca moom la jógee ba yàlla bindee ni kaw ak suuf bind nit ñi ca bind bind aadama ca juróom benneeli fan ba muy bisab sab bisab ajuma ca saasu mujj sa may ko xawaa muy jabaram gannaaw gi nag dimanche moom bind ci dara dimanche tawat mu ne ko ne ne ko yow yàlla bis bu ne may nga ko loo xam ne moom lay màndargoo ba mu des man mu ne may naa la bi ku ci jóg di di dox soxla jox itte ba nag mu ne mu ne mu ne ko danaa da da aaju aaju boobu daana ci daana ci faju moo tax yonent bi daan gën a altine kii dimanche daan gën a tukki wala alxames wala beneen bis boo xam ne moom yàlla dogal waaye bis yooyu yàlla moo ko garanti loolu. bay doomu aadama yi di dem di dem di dem dem ki tax ñu bind leen nag mooy yonentu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam sangi way njëkk ak way mujj moom moom ñoo ñuy jonante moo tax yàlla dañu di ko tànnal ay ndey ki baay la ko dalee ci aadama ak xawaa ba ci Abdoulaye ak Aminatu mu judd judd boo xam ne judd bu tumuranke la judd boo xam ne bu bu bu bu doy kéemaan la màggee noonu la ko yàlla defal loolu yëpp suñ ci doon def bis bi mën naa jeex te duñ wax juddu gi rek mën nañ cee wax duñ ba te ba jaraayu jeex waaye luñ mënta wax lépp duñ duñ bàyyi lépp waaye dañ cee laal lu ne tuuti rek ndax yonent boobu sallallahu alayhi wasallam ki tax yàlla bind moo tax mu ne ba ko yàlla bindee lépp lu yàlla bind maam Mouhamed ruuxu Mouhamed moomu moo ci def ruuxu yàlla ba mu waxee ne ba mu bindee aadama ba mu ko bindee ba mat daf caa bés daf caa def ruuxu ruuxu googu mooy yonentu yàlla Mouhamed mu ne mu ne ba nga xamee ne aadama ci dafa def tawasul ci yeneen yonentu yàlla Mouhamed sallallahu alayhi moo tax mu may yàlla waaye mooy googa ca ci la yàlla nangu tuubam ba yow su ma tabee rabbu fa taaba alayhi wa hada ñu rewut ak Firawna mi nga xam ne wax jëm wax moo gën a rafet tax ndax dafa wax ne laa ilaha illa alladi amana bi bani israila wa ana min al muslimina waaye ba koy wax amul ca ndigal daf koo wax rek waaye aadama moom dafa jël ndigal te ndigal ndigal joola mooy yonentu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam ca loola barke boobu mu yonentu yàlla ci la ko yàlla mayee xawaa mi nga xam ne moom mooy jabaram mu jur ci mboolem doomu aadama yi moo tax ba nga xamee ne yàlla ba nga xamee ne gannaaw yonentu yàlla nuuxun itam ca gaalam ga bokk na itam ñu sonale ba mu ñaan leen yàlla yàlla ne ko na defar gaal mu defar gaal mu ne ko muccal naa la ci mucc gu booba yonentu yàlla Muhammad moom àndoon ak moom moo tax ba mu demee ca moom ñëpp la lot ba mu des moom ñi ñëpp lap lap ñi àndoon ak moom rek ñoom ñoo mucc loolu ci barke bi yonentu yàlla Muhammad la mu ne ba nga xamee ne yonentu yàlla musa itam yonentu yàlla Moussa ba ko firaw na toppee ak mbàmbareem xare mu daal di jàll jàll géej gi firaw na bëgg ñëw jàll yàlla daal di wàcce ko loolu te boobu tam yoon barke bi yonentu yàlla Muhammad moo fa moo fa nekkoon ba nga xamee ne yonentu yàlla mu yonentu yàlla Isa moom itam barke bi yonentu yàlla Muhammad sallallahu alayhi moo tax bàyyi dafa dafa wax ne Isa amut baay ndax aadama amul ndey amut baay moomu yàlla moo ko bind ci loxoom rek waaye Adama xaw a mën nañ mën nañoo wax ne yaay la am baay la am ndax ci aadama lañ ko jëlee maanaam beneen beneen mujjizaam ñetteel bi nag kawteef mooy ki nga xam ne am na ndey waaye amut baay mu ne mu def Mariyama waaye Mariyama itam ba ko yàlla bindee ruux yonent ruux ga yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi moo ca nekk moo tax mu jur doom jooju ci lu dul jëkkër mu ne baay mu ne ci su fekkoon ne ci zaahir dañuy wax ne kuy baayam dëgg dëgg dëgg jibril la ñuy wax waaye dëgg dëgg yonentu yàlla Muhammad mooy baayam moo tax mas naa wax ak ndey xadijatu ne ko xam nga ne yàlla may na ma Isa Mariyama ma may na ma ko muy jëkkëram bàyyi na loolu lu tumaranke loo xam ne xel nangu ko yàlla moom mooy defee noonu moo tax doom ji nga xam ne dafa juddu ci lu dul ndey ak baay muy mari muy muy muy Isa ndey ji ko jur moom itam juru ko ci say waaye ruux yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi mooy mooy seen baay te moom dem na ah, Mariama dem na ba fàddu Isa itam dem ba yàlla éegal ko ci kaw yonentu yàlla Muhammad door a ñëwut te loolu xel nangu ko ndax te moom moom moo jur lu ma jur dëgg dëgg dëgg moo jur yonentu yàlla Isaa kon mu ne loolu dara waralu ko lu mooy mbëggeel dara waru ko lu mooy topp ndigal moo tax ndig mbëggeel googa moo nekkoon ci képp koo xam ne jege na yonentu yàlla Muhammad te loolu mooy day mooy dayab càkkutéef moo tax malaaka yi moom Jibril mooy seen sang waaye malaaka yi jibril ci gënoon na bëgg yonentu yàlla muhammad sallallahu alayhi wasallam moo tax mbëggeel gom ko mbëggeel moo ko def muy sangi malaaka yi moo tax mu def ko mu àndoon ak moom ca rañaan ma mu dem mu yónni ko mu doon àndandooram wàcc wàcc juróom benn junne yoon ci moom yoo xam ne mu ne loolu yëpp mbëggeel gu ma ko waral mu ne yénoon mu ne saxaaba yi xulafaa wal arbaati yàlla ba mu bindee aadama ba mu bind def ne ko nag bañ dine leer ak yonent gi daf ne ko moom nag am na ñeenti ni ñoo xam ne mënta tàggoo ak moom muy Aboubacar ak Omar ak osmaan ak Aliou ñoom ñëpp ñoom mënuñoo tàggoo ak moo tax kenn ku ne mu jël la jox la dara ci leer ak yonent yàlla Muhammad googu nga nekkee ko mooy kenn ku ne mooy siru bi nekkoon ci yow waaye mu ne ñoom saxaaba yooyu ñeenti saxaaba yooyu Aboubacar moo ci gën a sori yonent bi ci jege ñaale Aliou ko ci gën a jege su fi jegee bi su fi jógee euh, euh, Omar topp euh, Ousmane topp Omar topp Aboubacar door topp ci jege ñaale waaye ñoom mbëggeel gi nga xam moo nekk ci Aboubacar moo ko may maqaamaab moom mu doon xalifa yonent bi gannaawam moo doon saani yus ne ni isma fil xaari bi ñu àndee ceem xontuwa moo nekk ilimaan moom rek moo doon mës doon ilimaan ci jamono yonentu yonent bi toog di dund jibil di wàcc alxuraan di ñëw ba mu te te te mu doon ilimaan boobu kooku mooy mooy mooy mooy Aboubacar Saddiq Aboubacar Saddiq looloo ko may itam mooy doon ñaareelu yonentu bi ca xabroom ba mooy doon ñaareel yonentu wax na loo xam ne booba gàddaayagul sax ñëw Medina mu ne yowmal xiyaamati man la ñuy njëkk a fëgg ma jóg xot suuf xoteeku suma kaw ma jóg fekk Abubakar ak suma wet ma fëgg ko mu daal di jóg mu yàlla door a génne mbindeef yëpp boobu kenn xamul ne yonentu dana gàddaay dem Medina sax sàkkaa moo moo moo Abubakar ñuy ñuy ñuy ñuy deyandoor moo tax ñuy tëddandoor ci bés loolu yëpp su amee daal muy wane ne dafa wane suñu yonent bi du yonentu ordinaire yonentu la boo xam ne loolu moo euh, bëggeel ko rek mooy dayub càkkuteef yonentu bi moo taxoon Mawlaana Cheikh Ibrahima mi nga xam ne mooy suñ moom itam lépp loo xam ne moo doon liggéeyam rek ommat nit ñi bañ xam kan bi mooy yonentu yàlla Muhammad suñ ko xamee bëgg ko suñ ko bëggee seen àddina éwen seen àllaaxira éwen moo taxoon liggéeyam dundam yëpp ci loolu ko def kon nag su fekkee ne giirab dundi bàyyi min ni mi nekkoon moo daan moo daan moo daan sikkaral nii ngeen di def moo daan sikkaral baayam ca gàmmoo yi ca gàmmu ya bi mu fi jógee juróom-ñaari at mu di ko defal Baye Khalifa gannaaw loolu bi fayda bi feeñee mu ñëw fii itam itteem yëpp mooy firi alxuraan jàngale alxuraan topp ci tànk yu yonent bi ba loolu tax mu ne isa saara xayru naasi sirtu waraahu wa in xalla yowman fal masiru bàyyidun fu yonent teg gis ma tànk rek ma tak teg sama tànk topp ci kawam kon nag su fekkee mënuñoo am maqaama boobu nga xam ne dañuy dañuy topp ci kawam ñi nga xamee moom la toppee kaw yonent bi ñu daal di topp kon ki nga xam ne óor nañu mu ngi topp ci yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam loolu mooy sur bii bi nga ne dundam giirab dund giirab dundi baay bi liñ doon gis mooy mu yëngatu ci lii bi mu dem bàyyi ko fi texe mi gën a rëy ci ñun mooy ñu aw ci tànk yooyu rek ba nga xam ne nañ ci nekkee woon ak moom loolu la wax ci wasee bi sax ne moom njabootam ak kiyam ñu leen di ñu wax ñu ànd ak sëriñ Aliou ni nga xamee ne loolu la ñu àndee woon ak moom ànd booba daf ñoo óor ne sëriñ Aliou mi ngi topp ci gannaaw Baye moo tax kon topp ci ku jokk ci ku jokk la ñu nekk ci yoon woowu kon nag su jamono ñëwee tey ba nga xam ne mënuñ lañ mën a def yàlla loo loo xam ne da ngaa tàmm ko def daay man ba am gàllankoor defoo ko sax dafa lay bindal ne def nga ko mm. kon suñ toogoon gàmmuñ sax yàlla danañu bindal ne gàmm nañ ndax bisab tey waaye muy muy muy muy gàmmaat gi nii dafa tolloo ak lu lu lu tumuranke yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi si altine la judd 20 euh, avril mu ngi toll mi ngi tolloo nag weeru avril muy tam moom itam mu toll ak altine loolu yëpp ñëw tolloo ci bis bi kon su fekkee ne amuñ man-man ba nga xam ne dañ dajee Dakar nañ ko daan defee comme ni ko bàyyi sa la déewoon itam fuñ man di nekk kenn ku nekk sa xol a ngi tudd yoon ndax ku teeylu rek da nga dégg gàmm goo xam ne bàyyee ko gàmmul boppam. waaw nga ñu ñu ñu ñu lépp loolu la ci loolu lañ ko jokk. kon nag su fekkee ne mënuñoo def loolu itam ñu baaxantal toog fu ñu toog daal di wax. bis boobu bis boobu nga xam ne yàlla may na ci àddina bi loo xam ne mosu ko ko may tabe bàyyi yàlla li muy tabe tabe tabe tabe tabe keroog bu mu ñuy may yonent yàlla Muhammad mënta mën mën mënta mayati lu lu lu gën lu gën a kowe loolu ndax loolu moom mooy moom rek bàyyi mu ne dafa niroo niroo niroo yàlla ba nga xam ne seen seen différence rek mooy kii moo maye kii lañ may <laughs> moo tax yàlla gannaaw mayam gi gannaaw bu maye yonentu mayut kenn ne su ngeen bëggee ci sumay suma suma mbir mii topp leen ci yonentu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam qul in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni yuhibbukum allah loolu ngi topp topp yonentu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam mooy tax yàlla bëgg ñu hmm. te mbëggeel mooy cosaani lépp kon nag ñi ngi daje fii tey di gis ne àddina bi di ñaan jógee fu nekk waaye ba ba léegi alhamdulilah yàlla def na xam-xam mën naa tasaaroo mën naa kii ba nga xam ne Baye daana wax ñu koy dégg ci rajo daana wax ñu di ko dégg ci kaset waaye ba léegi Baye moom mooy wax la muy wax itam nit ñi dañ ko dégg ci sawtu ak suura ak foto ak image boo xam ne bis ba mu doon màggal ba léegi ñoo ma ngi koy topp di ko ñu ngi gërëm daayiratu Ansaar Diin bi nga xam ne ñoom itam taxaw nañ taxawaay bi nga xam ne lii bëgguñ mukk la mu mu mu mu jaas kon nag ñu ngi ñu leen seedeel na jaasut ñu leen seedeel na def nañ lañ lañ defoon ci nit ki su ay naa lu baax te defu ko sax yàlla bi bindal ko ci yool sàkkaar su ko defee nag te def bi itam emut ci Kaolack daanañ ko def mu em Dakar rek waaye nag bii dañ koy def mu dem ci àddina bi fu nekk loolu ci ngëneelal suñ xarit suñ doom ñi nga xam ne mooy Moussa mi nga xam ne ñooy mooy mooy cosaani kii ah Omar Omar Wañ nga xam ne ñoom ñoo fi ñoo ñooy jël média bi di ko kii ñu mën ko sànni mu dem fu nekk ba pare ñi koy dégg ñëpp suñ tegee ñaari fan kenn ku ne am ko ci sa téléphone soo ko bëggee delloo si delloo siyaar ko kon ba tey leerul leer la ci kaw leer ñu ngi ñaan yàlla Mouhamadou Lamine Mouhamadou Lamine wa Cheikh Mouhamida nañ teew na waaw war nañu comme bi ñuy gërëm itam waa daayira bi daayira Ansaar Diin bi nga xam ne suñu rek cheikh Mouhamadul Munhamina Munhamina li muy firi eh, tur la ci turi ajame ci tur yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam waaye mooy may may may may may may gu ñu may. kon nag moom itam na ko yàlla na yàlla mayoon yonent bi eh, bàyyi noonu la ko noonu la noonu la ko mayee bàyyi mu ñëw toog fii ndaw la ñu gis toog gis suñ mag yi. ñi nga ñoo ñu doon teete ba ñuy jéem nii suñ gisee ñu itam suñu rakk yi nekk suñ tànk yooyu di ñëw di dox loolu dañ leen ñaar yàlla yàlla may leen réussir dañ leen ñaan yàlla képp koo xam ne yaa ngi liggéey ci fayda bi ci biir activité ci biti ñooñu ñooy ñooy ñooy ñooy ñooy ambassadeurs yi Cheikh Ibrahim te Cheikh Ibrahim amul sikk ne mooy ambassadeur yi yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa fay yàlla fay yàlla waroon na àggale lislaam keroog ba ñuy def xandak ba mu ne xapp mu ne xuy ba mel ni làmp buñ taal ci leer ci lëndëm mu mu ban gannos ba toj mu daal di defaat beneen ñaar ba mu defee ñetteel mu ne allahu akbar xeer wa daal di tasaaroo Salmaan al Farisi ne ko ndax gis nga liñ gisoon mu ne leen mu ne ko bi nga xappee dafa leer ba mel ni làmp buñ taal ci néeg bi lëndëm mu ne ko booba la la ma sama borom di kiyal ni ma suma suma diine ji dana àgg fépp fu jant bi àgg bu ma xappee bu njëkk ba laa gis taaxi sanaawal yemane bu ma dooree yoonu ñaareel ci laa gis taaxi kissa anu sherwan cay cay cay xaaris ma ko kappe ñetti ñetteel nag ci la ma yàlla ubbil àddina bi yëpp kon alhamdulilah bi nga xamee yàlla boole ñu ci soldaar nga xam ne dañuy liggéeyal bàyyi mi nga xam ne óor nañu ne yonent bi lay liggéeyal moom ñun uti kiiwuñ sax jotewuñu sax ca ca ca ca ut ngërëmaa yonent waaye suñu bàyyi gërëmee ñu xam ne yonent bi gërëm na ndax yonent moo ñu ko jox mu def muy yërmaane joo xam ne daf ko at jox xat xeet wi dëgg-dëgg Sénégal ak àddina bi yëpp ñu ngi ci xat-xat waaye dara waralu ko lu may dañoo sori loolu nag mu rëdd woo nga xam ne moom lañ moom moom la yonent doon dox góor yàlla di ci dox maggi Sénégal yi di ci dox ci fenn fu nekk dañoo dem ba mel ni dañoo raay dañoo raay génn yoon wi nga xam ne moom awoon waxtu wu nekk nag dafa mel ni nit ñu njëkk ñe ñooñu gën a texe sax ndax ñooñu bi yàlla bëggee ñu aw ci yoonu ñu dafa leen doon tànn dafa leen doon yónnee ay yonent ñun mu tànn ñu yonent bi gën ci yonent yi sang yonent yónni ko mu ñëw ci ñun biñu demee ba dë li nekk yàlla am na soldaar bu gën a tuuti boo xam bët sax mënu koo gis te amul xet amul amul amul couleur mu mu bi mu ko waxee lépp loo xam ne yonent yaa ngi doon jihaat yonent bi xeex na juróom-ñaar fukki xare yoo xam ne ñaar fukki yeeg juróom-ñaar moom ci boppam bokk na ci xare booba am na fukk ak ñaar yoo xam ne moom jël na jaase moom ci boppam di di di di xapp euh, rey na ñaari yoon baay mu ne kenn gënta texe koo xam ne ki ñëw pour indi jëmm yërmaane ci àddina bi dem ba di reyal boppam waaye ñu itam kooku nga xam ne yàlla moo ñu ko tànn tànn ko ci mboolem mbindeef yi ñu góor yàlla yi wan ñu ne kii da ngeen ko war a fonk da ngeen lim fi bàyyi woon ñu dem ba di ko fàtte léegi lu nekk indi nañ ko diine ju nekk indi nañ ko lu nekk indi nañ ko moo tax yàlla dañ ñoo bëgg a jaaj rek waaye lii mbugal mu nekk ma natt bu nekk xéwal a cee topp kuñ bëgg rek lañuy ñuy nattu examen natt mooy examen rek kuñ at kuñ examen rek soo soo admee da ngay jëm ci beneen maqaama mm-hmm. waaye dana jeex incha allah te su jeexee ah. ñi ci dem ay suhadaa wal abraar la ñu doon ñi nga xam ne danañ fi des danañ gis àddina bi beneen xeetu yonentu yàlla muhammad sallallahu boo xam ne lii tudd corona moo moo mooy ñëw nekk du corona waaye quran la de quran la lañu yàlla tas asalaamaaleykum gannaaw bu ma ñaanalee Cheikh Ahmed nga xam ne euh, lii yëpp moom la Euh, ñaanal ay kàngamam rakkam yi nekkoon ci gannaawam ndax tukki na fi absenté na fi lu mat juróom benn weer wala juróom ñaari weer waaye ñi mu fi bàyyi woon taxaw nañ taxawaay bu mat sëkk ba mel ni soo demee këram da nga foog ne mu nga ci këram ñu jël ci njiital Cheikh Mahamadul Mahi waaw taxaw na ci gàmmu gi taxaw na ci yëf yi nga xam ne taxawoon na amul fenn foo xam ne taalibe Baay xool na gis kenn manque ci ci ci ci message mission yi nga xam ne mi mi bàyyi ko mission teg ko ci ci ci seen loxo waaye Cheikh Baba Lamine itam mi nga xam ne moo nekk fële ca ca Dakar moom itam taxawaay na ma taxawaay bu mat sëkk kon nag ñun amuñ lu may sant yàlla rek koo xam ne su li al arab di wax ne idal inaayatu la xasat uyunuha nam fal maxaawifi kulluha am kulloona amaanu mu ne bëti bëti bëti kóolare su la xoolee nelawal nam la neexee ni nga li niiru lu raglu yëpp teraanga lay mujj doon kon nag feebar bi du dara lu may gën alhamdulilah bi nga xamee ne yàlla ñuy nattu waxtu wii lu mu tuuti tuuti kenn ku nekk gën a sori yàlla toog na jamono boo xam ne gende xam na ne dee am na xam ne na dund am na kon dee dana am xam na ne yàlla rek moo am doole ñi doon kër kër mbëru yi mbëru ci àddina bi ñoom ñoo ñoo ñoo ñoo gën a torox ñoo gën a new ndax xamuñ ko seen suba xam lay nekk waaw ci njiital Trump ak Johnson mu na nekk foofu kenn ku nekk fu demoon nga ba foog ne yaay yàlla. réew mi nga xam ne mu foog ne moom mooy mooy pays bi nga ëpp puissance ci àdduna bi. muy Amérique foogoon nañ ne lu neex rek mu am. waaye Siin ñi nga xam ne tamit dañoo foogoon ne su Amérique daanoo rek ñoom ñooy taxaw ñoom ñëpp xam ne kenn taxaw yàlla rek moo taxaw yàlla ñu taxaw